dégloo ti leen tey ma wax waxal dégloo ti leen tey ma wax waxal tey ma wax waxal tey ma wax waxal sa wax wax dina lay leer jàll wax ñoo bokk benn mbax e kañ du wax lu mu joxee sigaret day sañ lii bàcc soo bàcc soo ba tey sax jaay lu muy yaay yow xanaa maa ngi nii rek waaye sant alhamdulilah naka njaay bi maa ngi ma ah ñu ngi sant yàlla nànk-nànk ah noonu la daan na sant yaa ngi daan Amin, amin. rek. amiin amiin. xamee nga ma. yow. déedéet xamee ma la de. ah des fois maa fi romb ah temps des fois damay toog naan da ngaa jékki ci oto bi de xamee woo ma. man mii. waaw jaaloo ma kenn. kon de xam naa da nga maa fàtte bref loolu yëpp garaawul. damay faral ma xoolaale sa marchandise yi nu muy demee. Ah, a am avenir de xam nga loolu. du ma yor ko amal avenir nag. xam naa loola ndeysaan. tax na dama ñu de jaay yi nga jaay yi nga xam dafa koo soxla. ah baax na. te li nga lu baax ngay jaay gis naa xale yi ñuy seen sa yaa ngi. la nga may solo. cum. da ngay la xarit dama la a def xarit. ñëw fi ma lay solo. waaw baax na ci de. def la xarit nga may conseil yu ma war a sol ma war a sol parce que man si nit ñi laay dem nit ñi ñëw may wër xam naa xamoo loolu mais daa amoon lu ma la bëggoon wax loo xam dafa important te bëgguma kenn si yëg ko ma bëgg nekk si bëgguma mu si ma samay affaire si wu nga oto yi may dawal yi yëpp dañuy gis rek may changé te duñu xam tu comprends te man dama la yéene ci oto yooyu ngay dawal si yéene la nga am kër si yéene la nga am avenir bu baax si yéene la ay prêt-à-porter yu dul jeex si yéene xale bi avenir am tamit si mm-hmm. que tey dara neex ñu defal doomu jaam auto ko avenir bu baax. si ba tax na dafa am lu mëna bëggoon wax. moy lan. am ben business bu mëna bëgg duggal dugal rek tax dama la yërem ci jaay jaay bi. naaj bi tang na. business. waaw waaw. balaa apprenti mën naa wax apprenti. sa surga daal. non loolu kilifa nga. kon nga ma papa wala nijaay. business bi lan la. business bi lenn la. dama laa bëggoon jaay loo yaa mbaax. yaayee. yamba. waaw eh yow la yuuxu. nga jaay yamba. ma tudd. waaw waxoon naa ko bu jaay yamba. Njaay bëgg jaay jaay yamba yow lay def nii bu ma ñappati bul ma ñappati dañ man dama la xam ah dañ ko bàyyi ko bàyyi yow da nga dawal kat kat kër ni da nga jaay yamba mi yow da nga yéex a dawal kat kat mu dugal mu dugal waay nee na may sama naan sama kaka bu weex bi dama ko kii dama ko kaka dama ko kiki boo ko dee kaka nga def ko ca dus ba xam nga ma ma ma ma c'est pas ton égal waaw dama am xaalis. nga xaalis. ma dix mille. da nga am xaalis yow foo jëlee xaalis. ñaata nga ma ñaar. dix mille. quinze mille quinze mille. wala sax vingt mille. trente cinq mille la ngi nii. Lili. moo nanguwee ma doole. Lili. ñoom maa luñ koy jaay. Eh, benn bés nga teg ku la wax jaay am nga veste rek xamal ne yamba bi la la wax. yamba bi ci veste bi nga koy dugal léegi boo jaayee si journée bi journée laa la wax de cent mille journée cent nga jël cinquante nga jël cinquante. donc laa moom loolu ma li may am moom ma ñor. waaw kay léegi yaa ak noppi. man kenn man da waaw day laam fii laa dem fii ci hôpital bi daal ñu dem Pousago ñu ñëw sama fii ba fii may leer. nga demee ci hôpital toogal fi nga noppi. Ah. noppi boo noppi am kàkka bu weex bi yaa ko moom. lu la ko may yàmba. noppi. fu gën a yëre yi nga sax ci yàmba bi. doo noppi. loolu day laal. yàlla yàmba bi nëbb ko. bu kenn xam nag boo noppiwul la ma. nëbb ko rob naa ko rob naa ko rob ko sa borom mu ci am xaalis ci am otom ak kat katam yu baax. ak këram. maa ngi dem kañ lañ sax suba. suba incha allah. kon yëgal sa gars yi nii jox ko gars yi jox nga ma. yàgg na wax naa la ko ba yàgg. merci dama jërëjëf. naa naa la bàyyi xel léegi soo wëñee naa la jox dégg nga cinquante mille jël cinquante mille. bu tëjul dërëm nag dégg nga bu manqué leen un franc. waaw dañuy arrêté. incha allah lili lili. I love you I love you. suñu yëfa ànd tag wax suñu yëfa ànd tag wax ju bari lili suñu yàmbaaje bu ñu ko wax ci kaw nañ ko wax ci suuf daa yàmbaa ànd tag wax bu baax dégg nga xanaa ku ñu digg na man la damay jaay yàmbaa rek xale yu góor yi eh damay jaay yàmbaa yàmbaa takk cent takk deux cent takk trois cent lii nee ma ko jox lii lii nee na sama tekki naa nag de jaay yàmbaa rek tekki waay ko wax kenn de xale yu góor yi rek xale yu góor yi ngay woo ata ngaa dem ki nit ñi naan la naan leen kii xam nga ne xale yu góor yi kese nga xaw woo benn mag laaj yaa ngi ni xeewu say bët naay wóoluwuma la nag. dalul xuloo dalul xeex. sëriñ àjjana. Zara. xale bu sa tànk ne nga nañ maa liggéey ku tijji place ba xool nga nañ maa liggéey ku xëy amoo xaalis nga nañ maa liggéey ku xuloo nit ñi nañ maa liggéey. kenn liggéeyul kenn yàlla mooy dogal nañ bàyyi dañ maa liggéey bi yàlla suñu borom bi may xool la xam neex ma def ko si jaamam kenn liggéeyul kenn waa kay. bàyyi loolu léegi nag li bàyyi li ñu nekkee nii parce que damaa jóg. ma wax rek mu ne man demal fan man mënu ma am dara dañ maa liggéey man de sama bible si nekk dañ maa jóg loolu la ñu war a bàyyi. salaamaaleykum xanaa ku la nuyu nga mën koo fay. ah yow xanaa xuloo gi ñëwee. non non. da ngaa ñëw sama place rek may wax doon nekk de. mais xanaa ku ñëw lu bu la nuyoo nga mën koo fay. da doon nuyoo fay ma. Ndiaye. si kii fekk naa ko dégg nga maa ko gën a nekk. mënoo ñëw sama place te fës sa kanam ak am mooy gis nga xoolal. xoolal wax ci bëri ci laa dul mën. mën naa ko mën naa ko gën a comprendre. mën naa ko mën naa tànn. man laa élément waa service d'hygiène. service d'hygiène. nga war a ñuy tuur ndox. xam nga la laa bëgg. nga génnee ma sa récépissé. récépissé. waaw mais da koy déposé carte te ma am naa carte bu yàgg. li ngay wax waxuma ko de. damaa bëgg nga jub nga génne ma sa récépissé wala ñu tëj mbaar mi. tëj mbaar mi. Ah, mbaar bi daal mooy càkk yaayam xam nga lu nga xam bu fekkee rek laa yebal ci man sama mbaar mii nekk ko jot tëj nekk ko jot tijji fi yalla ma fi dëkk nangu nañ ma li yalla dogal yalla mo ni njaay fukki jaay day daj mbaram njaay fukki jaay ni ngi dañ koy ci mbar mi di jënd njaay fukki jaay day tedd lool yalla ko wax yow sa wax mu ngi bëgg bari mën na dugg li jëndi génnee sa sa wala mënoo ta day gën bari sama wax ta day gën bari ok loolu laa sama récépissé sama sama wala ba eh, ma ma sama sama xaar sa jëm lañuy bu wala jaay lu muy jaay yow xanaa bëgg jaay yow jaay xoolal ni wër la Dakar wër Kees wër leen ba juróom ñaar